والقلم وما يسطرون salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi comité d'organisation grand prix C3S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 thème bi nga xam ne suñu sàmm andi na ko muy bu am am solo euh, dañ ciy jaar jàll rek pour njëkkante waxtu bi su ko defee doog a dem ci maayir yi nga xam moom lañuy natte ñi nga xam ñooñu ñooy bokk ci concours bi xam naa soof suñuy kàddu ci suñu sàmm ndax tuddoon na baatub ahamantum nga xam ne day maam ñaari yoon rek la ñëw ci alxuraan ndax mooy baat boo xam dafa am ñetti hamza comme ahalihatuna ak ahamantuma ñetti xam hamza ñoo fi nekk waaye boo xoolee misaal la ko ndax li si gën a wér mooy bu njëkk bi moom bu fekkee da ngay bind kaamil xam nga dañ koy jaune la mooy tomb boobu benn mu nekk hamza wala wala ab tomb bu ñaareel bi gis nga ko moom mooy nekk maanaam maa ngi si bii kon na ah, damaa juum bii moom day nekk alif goo xam ni mooy aliful kaxlaa gi mu doon wax mooy gu ñuul gi waaye day am benn nuqta du tas hiil sa kaw bu ñaareel bi nag bu ñetteel bi nag moom lañuy ñuy ah. kooku moom mooy al wajhul awal mooy al mooy al maamul mooy bi ñuy jëfandikoo ñaare boo demee si masaahif yu bare bare bari loolu nga fay fekk xam naa kon lu neex a jàpp la aha mantum xam ngeen saarim ñëw ah araf shuara toha ah aywa suxru kon loolu yeneen anam yi moom dañ ko andi ne leen wan na amaana nga dajeek moom waaye nekkul lu loo xam dañ koy jëfandikoo fii gis nga ñi kii leen def bu jaune bi toujours moom day nekk bu jaune ah gis nga bii ñaareel bi ki ñu xongoloon moom deuxième la ko def kii mu defoon ñaareel mu def ko am ñetteel gis nga nga ñëwaat fii encore nga gisaat gi kii moom daa ñëw far defu ko sax alifaay nuqtal tasxiir rek la def ah mën ngaa dajeek moom si kaw koo xam da ngay jàngale ah. waaye nga xam ne ñetti anam yëpp am na dañ koy jëfandikoo waaye nag almaamul mooy alwajhul awal hmm? bu njëkk bi waaw boobu moom daane moom ngay fekk si masaahib yu yu bare bare rawatina sax yi nga xam ne moom la ñuy binde ci euh, suñu réew mi xam naa ba la jàll dañuy jéggulu tuuti parce que démb am nañ fi benn question boo xam ni bi ma xoolaate mu saxal gi rek si laa xam ne kon ndeke am na ku fi junjoon ci ci kilifa yi ne am na dana bind wallaahi waaye tomb bi ci suufu yaa gi la koy def kon kooku dafa jàpp ni hamza gi kenn du ko tashil la ah. day jàpp ni hamza gi bu fekkee kenn tashilu ko tam kasra mën naa nekk ci suufu yaa gi ah yaa ngi dégg wax mi ngoog bu fekkee nekkul nekkul musahalan xam nga dañoo waxoon ni nii lañuy def tashil bi fii lañ ko tegoon ah waaye nag su fekkee tashiloo ko nga xam da ngaa jëfandikoo hamza gi si boppam mën naa nekk ni ci suufu yaa gi ah. na ku ma fi junj démb yaakaar naa suma suma suma la te yooyu bari na dañuy wax ne gépp hamza comme dañ koy kasara mu nekk si mujjug baat ànd ak yaa ñaari anam daf si am benn mu nekk ci suufam wala mu nekk ci biir gi lu mel ni ki lu mel ni li ku lim ri ah, xam nga boo defee nii la leen gis ñoom fii lañ koy def la leen gis ñoom fii lañ koy def ah. moom lañ tuddee hamza du zille mooy hamza goo xam day nekk ci suufu ker gi ah maam yaa gi moom moo koy ëmb yooyu nag bariwul daanaka boo si génnee mi chaatil doo ngay gis ah. ak ban wallaay bi ñu wax léegi hmm? yaakaar naa ñett yooyu sax ak sayi sayi macron sayi ah, ah. maam ci suufu xam se gi ah ci suufu yàgg day génn nekk si biiram ah moo tax ñu ngi tuddee xam sadu zille maam day mel day nekk ak garab nga nekk ci suufu kerem nga ah. moom la ñuy tuddee hamzatu zilli ah kon boobu day delluwaat ci bi mbokk mi doon wax na am na kilifa goo xam ne wallaahi bu koy bind noqta bi du ko def si biir yaa gi waaye da koy génn yaa gi def ko si suufam ah loolu suñu xel def si àgguloon waaye bin analyser tasihil googu si lañ xam ne kon ndekk am na leneen lu am ndax bind moom bu ne musahalan rek fahmu bi mooy li nga xam ne moom dañ koo taxqiq wala dañ koo naqalu ban àttal la war a doon parce que fahmu moom loolu lay jariñ bu leen le benn ba taxaw sa rek am na leneen lu ñuy dégg suñu téere yi ñuy sukkandiku ni si ay xam-xam yu wér lañuy sukkandiku léegi-léegi nag nga gis si téere yu soppi bu fekk na ñi ko doon defaraat si machine ñoo si dugal ay njuumte waaye ñoom fi xaqiqa li ñu doon bind euh, amoon na fu ñu euh, teg loolu lañ ko doon dab di ko jégul en même démb am na ko laaj bi ma ne uktub hija rasmi bi sawaadi wa dab tamis bi xumratil midaadi bi ma laaj bayit woo dama ko waxoon ne ko mi ngi ci Euh, mawridu zamaan waaye bayit woowu nag nekkul ci mawridu zamaan mi ngi nekk si lu ñuy wax kashful ama wa rayn benn téere bu ñuy wax kashful ama wa rayn si la nekk ah. kan muhammadul aqib maaya ba njaganiya ah. ah, da ko gis da nga ko yor kon foofu la nekk waaye nekkul ci mawridu zamaan loolu dañ ko doon jiital pour fàttali ko su ko defee ñu ñëwaat si siñ saam wax na fawaatihu suwar muy njëlbeeni saar yi lu mel ne ay alif laam miim ba mu jeex ay xaa ak yooyu taat xeeto xeet yooyu ah dañoo wax ni saxaaba yi ridwanullahi alayhim bi ñuy bind baat bi ñoom defu defuñu maam defuñu si dara noonu lañ ko noonu noonu la ñëwee ah sàddewuñ ko maasuñu ko defuñu si dara léegi nag am ñoo xam ne ñoom buñ koy buñ koy bind maam xooluñu ci ni mu wàcce woon ci bind waaye maam jëmmi lafasu bi la ñuy xool doog koo maas ngeen bàyyi ko xel bu baax nag bu dee lafasu boobu ñuy ñuy maas nag suñu sàmm andi na ay misaal bu dee ci mashriq ni ñu koy jëfandikoo xam ñoom madd rek la ñuy def duñ maas boo tool boo xoolantee raxaf si rek nga gis ko ñoom ay alif laam ñoom ko maas dégg nga duñ sàdda waaye alaamatul madd rek la ñuy teg si kaw xam ko leer na bu dee ci ci wàll googu waaye bu dee fii ci suñu gox yi liñ ci xam moom dañuy maas dañuy sàdd dañuy màdd dañuy wàqfu xanaa benn ci xam yi moom dañu ko bàyyi xel baax nag ndax xam nga suñu saam yi ngeen di gis ni ñaare moom mooy dugal question yi yi ngeen di bindee ah, dama koy boole moom mooy defar code yi te fi neen buy dugal code yi maanaam fa attayee nekk fa gën a lëj xam nga ni kenn du la tegal la ab lim naan la bindal ma sàbbi isma rabbika loolu moom mënul nekk maanaam day xool fa mu gën a lëjee ak fa mu gën a jaxasoo ak fa ahkaam ya nekk mu dagg ay kotom teg mel na moom képp moo koy xam ñun xamuñu si dara yow mii di wax itam fa nga toogee bu ne la lemmil kayit yi ba nga lemmi ko loola moom mooy saf liggéey daanaka ñun ak yow ña nekk te saal ba ñëpp si yem loolu nag bu fekkee ni noonu lay demee dangay fexe ba masala yi root si dawre yi nga di si taxaw bu baax a baax parce que c'est important ndax alxuraan moom noonu la mel dafa lëj kon benn rek mu lañ si wax ne xañ na amaana moom waqfu du ko gaar lu mel ni xaamim yi xam nga alif laam ra yooyu yëpp buy jeex da ngay waqaf si kaw ah day def mad waqaf waaye lu mel ne xaamim ayn siin qaaf boobu rek mooy bi xam ne xaamim googu du am waqaf ngeen ko bàyyi xel lu baax am ayn siin kenn du ko waqaf fii xam nga yëpp mën ngaa def nii ah mën ngaa def mad ba pare waqaf si kaw ah waaye bu dee ayn siin qaaf moom nii rek ngay def yaa ngi dégg ah da ngay ñëw continue ba fii waaye waaye waaye yeneen moom mi moom du am doom waaye yeneen xaame mi nga dégg yëpp ñoom dañuy am alaamatul waqfi waaye ayin sin xaaf moom du ko am ngeen bàyyi ko xel bu bu baax waaw ñun toujours dama koy fàtte wax ñun dañuy jàngale ci riwaayu Warsh parce que boo xoolee dars bi ni maam ni muy tënkoo su fekkoon da ngaa bëgg a dugg naa xaaluun lii la wax masaarix lii lañ wax waaye lii bi nii lañ ko jàngee maanaam yow danañ génn gàm bi te am même temps sax amaana ñoo xam duñ ko xam waaye boo xoolee ñun li ñuy tarkis toujours di si taxaw mooy riwaaya warsh parce que moom la ñuy bind si réew mi moom la ñuy concouré concours bi tey boo si andoon beneen riwaaya yaakaar naa ubbeeguñu ay buntu pour mën a accepter yëpp loolu waaye moo tax ñu taxaw ci ñu taxaw ci étape boobu kon yooyu ay fàttaliku ay dañ ko doon fàttaliku mu am nag si fawaatihu suwar yoo xam dañ koy xëcc ba pare maas ko yoo xam dañ koy xëcci ba pare ko kon man man nga see déggee ni kon am na yoo xam ne manees na koo maas waaye kenn du ko xëcc ñu ni la yi nuy xëcc nu koy xëcc bu baax ba pare maas ko juróom-ñett la si alxuraan ah. moom la boroom xam-xam yi di tënkee naqussu asalakuma boo nee naqussu asalakum kii nuun gi mooy nuun ah qaaf xam nga tey qaaf boo bind gis nga nii nga def dangay def nii ba pare daal di màdd si kaw ah même nuun ah nuun qaaf même soad ah ayn ah. laam kaaf miim yii foo leen fekk moom da maas ba pare teg màdd gi si kawam ah. wala si yushkal dañ koy maas waaye nag laa yu kooku juróom la moom la ñuy tënke hayyu xayuraat lu mel ni ki xaa miim xam nga xaa googu kenn xëccul ko xaa gi ah. ak ya comme ya yaasina ah. ra alif laam ra xaa kaaf yaa ayn sood koo to sina ah. yi moom yushkal dañ koy maas ndax gis ne alif da gis ne waaye nag laa yu mat kenn du ko xëcc yooyu mooy xayuraatin mooy tënk bi mooy juróoma benn benn ku jàmbaar tënku ko nag si wenn bayit pour nga mokkal ko mën ko yóbbaale doo doo si am jafe-jafe moom daa wax ne wa fii naqussu asalakum shaklan wa mad ah, waxay yu raatin shakluha laysa yumad ah, ah wa fii naqussu asalakum ayo wa fii moom da koy maas ba pare màdd ko wa fii naqus maam saat googu ñu saada nag bu leen ko def ñaar genn rek la xisaabul jumal ñaar duñ fonk di yi ni yi ni yi ni yi ñu koy séparé dañ koy jàpp rek benn wa fii naqus asalakum shaklan wa mad wa xayu raxtin shakluha laysa yumad shakluha aywa shaklan wa mad ooy dafa ko taxfifal rek moo tax sàdduwu ko shakilan wa shakluha laysa yu mat dañ koy maas waaye kenn du ko madd ñëw na wa fii naqussu asalakum shaklan wa mad wa xayu raxatin shakluha laysa yumad daal gi bu ko sàdd pour balaa way wee dënga ah. wa fii naqussu asalakum shaklan wa mad wa xayu raxatin shakluha laysa yumad aywa loolu benn la ci taalixaat yi mu desaat li ñu tuddee yaa u zawaid kooku tam ñëw na ci dar si sëñ sàmbi lu ñu tuddee yaawu sawaayid mooy yaay yi xam dañ leen di dolli mu tudd si itam ay xaawu sila mooy yaag yi nekk si boo xëccee comme lu mel ni ay bihi wala li mi yi mu nekk loo xam lu mat a bàyyi xel ndax am na ay sew-sew yu bare bari yu ci nekk yoo xam dafay aaja nit di ko bàyyi xel bu baax a baax te xam ne yoon woowu mooy yoon win teg war ko binde alxuraanul karim mu nekk nag bunt boo xam ne bu yaatu la bu bari ay ixtilaafaat ah mooy li ñuy tuddee ah pareegul ah yow sawaay mbokk yi ñu di ko bàyyi xel bu baax lu mel ni ki ñaare buñ lay maasloo xamoo lu mel ni li qawmihi ah li qawmihi xamoo day gis ñoom dañuy ñëw rek def nii ah te dafa am xam-xam bu sew bu si nekk bu xóot boo xam ne borom xam-xam dañ see taxaw wax si ay mbir yu yu yu yéeme yu yaatu sax yoo xam ne boo ko déggee mën nga see jële bind bu bees xañ na bu fekkuloon nga xam ko est-ce que dafa war a tafu nii si moom wala est-ce que war a def nii xam naa ñàkku ni yéen a ngi dajeeg moom ci ci ah bu mujj bi ah waaw boo xoolee bii nag moom bari na lool rawate na ci waaw ba tey bii waaye yooyu wér na waaye fi mu da ci am yoo xam ne boo ko xasee xam boo boo gisee misaal bi rek da bëgg a xam li ma jubloo junj pour que yow nga mën see dolli ko bu baax moom lañuy dafa am lu ñuy tuddee aqsu ah ak waqs hmm. yooyu mooy xaayida bi nga xam ne moom mooy jàngat eh, yaagu yaa silla googu nga xam day ñëw si mujjug baat wala mën naa bañ doon yaawu silla sax waaye boo xamee ne fi'al bi dafa ràggee laam lu mel ni yastaxyi gis siñ saam doon junj léegi wala lu mel ni ay yux yi wa yu miit kooku da koy gis lu bëree bari ci alxuraan waaye ñu di si woote surtout lu mel ni inna allah la yi gi ngeen gis léegi waxoon naa leen ni leen ci réew mi am na ñoom dañ koy su àqsu su mooy dañuy def nii ah ngaa def nii ah maam da koy bank daal àqsu mooy bank maam àqsu mooy raddul ya ilal yamin radul ya ilal yamin mooy li naan banque rek leer na bu dee waqs mooy nga def ko nii ah comme yestax yi nga xam da nga koy yóbbu mu dem mel day dem ko de càmmoñ ah radul ya ilal yamin wa radduha ila la ah. am na ñoom taarif boobu lañ ci def léegi la sa nekkaat ci ay sew-sew nag dafay moom danga aajee bu fekkee nit ki xam na grammaire day tax mu man saa dimbali mu mën koo dimbali est-ce que yaa gi dañ koy dañ koy maas wala maasuñu ko ñoom ñëpp dañuy jàpp ne yaa gi moom heure bu lu mel ne tarafay nahaar ah, moom toujours ni nga bu fekkee yaa gi maas na rek lu mel ni la dayya ah, heure boo xamee ne yaa maas na sànnin mu jëm na de ah. loolu benn sew sew la waaye yaa nag bul yaakaar nag yaa gi maas mooy fataa rek bàmm si la bokk zawaata yukkuli na parce que loolu mooy xam-xam bi yàgg nañu def théorique bi mais loolu donc heure bu heure boo xam ne dafa maas defal nii ah xam nga bee wala neexee bu la lu mel ne min suluse yi lay li ngi dégg bu dee àllasi yi wax ne yàgg bu fekkee cosaan la xam ñu jàpp ni cosaan la mooy war ngay gis ñoom ñuy def nii xam dañ koy taf nii ñoom moom àq su lañ def ah. léeg-léeg nga gis koo xam day ñëw def si mu defal la ko nii ah. du ko si kanam mooy xam nga yëpp yéen a ngi gis si ci ci ci ci ci masaay bi ah. waaw bii bari na ñu koy def ci téere yi nga xam moom la ñuy jëfandikoo mais bii boo génnoon ñaari kaamil léegi il faut ñaari nga gis bii ñu def ko nii beneen bi ñu def ko nii. daa nekk bunt boo xam ni borom xam dañ see wuute ñi si gën a doon ay kàngam ku si mel imam Daane gi si sam doon wax léegi moom diggante ànqasu moom da seen neutre da seen la parce que xam na ni bari na coow xañ na loolu tax mu noppi si waaye bunt waaye yëpp am na parce que day am yoo xam ne ñaari borom xam-xam bu ñu ko seen lëngal benn si nekk parce que mu lu mel ni yiy jógee Mauritanie ak yiy jógee ci ay Maroc dañuy dañoo wuute ci ànqas ak waqs mooy war a ngay gis laa yestax yii ñii di ko bank ñeneen ñi di jël di ko di ko sànni ah. bu fekkee ne dafa sukkoon dañuy wax ne bu fekkee dafa sukkoon ah wala muy yaaw zaid moom dañ koy àqs maam day day day dëpp daal lu mel ni ki min tilqaa'i ah, xam nga yaa ngi zaid la mais da gis ñoo xam ne bu nee min tilqaa'i nii la ñuy def yaa ngi koy gis si téere yi wa min naanaa ah, xam nga zaid la bu sukkoonee da ngay ñëw si yastaxyi googu ah yastaxyi xam nga daa am ñoom ne comme dafa sukkoon ñaan dañ ko jàppee maska foofu la ñu wuutee xam nga ñi xam dañu jàpp ne dafa maas ñoom dañuy def nii parce que dara wax bu maasee da nga ko fataa ñi jàpp ne daal sukkoon moo tax ñoom bi ñëw ñu def ko nii waaw mais dañ la bu nekkee zaïd kay mooy zaïd moom lépp lu ñuy jàng lépp loo xam zaïd la kenn du ko jàng waaw ba tey ba tey kooku sukkoon guy dund la rek mi ngi si baat bi ñoo yem même même même alaama kooku moom beneen àtt la parce que kooku dafa am lu ko jiitu kooku moom danañ si ñëw parce que gis moom ñëwul ñëwul ci ginnaaw kii bi ah. kooku boo xoolee xam sa ga sa diggante kii ba la ñëw ah doog a xam sa ah. kooku yaakaar naa balaa daw bee jeex xañ na danañ si àgg yooyu ay sew-sew la yoo xam mat nay bàyyi xel surtout nag si waaw waaw ñoo ñoo yem moo xam guy dund la moo xam gu gu faatu la lu mel ni shay rek lu mel ni shayun kan si li shay in inni faailun waaw doog a ñëw yaa ngi def day ñëw ginnaaw ginnaaw xam sëg ya waaw xam naa ko mais en xam sëg moo koy mujj rek waaw moom laay wax noonu moog sayin gi ñoo yem rek moom day mel dañ koy kii boo gisee nii dañ koy àq sole doon waaw kalimatu ñaari anam yëpp ñëw na si parce que mooy yaakaar naa moom la doon jàng léegi na ah. kalimatu ak baqiyatu ah am na am na baqiya dindi bindal xam nga ko àq ah. mooy shay in gën dafa ñëw ginnaaw sukkoon goo ne mi ngi guy dund la ah. xam sukkoon xamoo sukkoon guy lu mel ni yuux yi xamoo sukkoon googu sukkoon gu dee la yuux yi wala bari un ah. هو بريء يوغا بدل من لا تبودي لا تبودي ها la tubu di ah. yaakaar naa boo xoolee Moussa Mouhamad yi boobu nga yor moom nii la koy def ah. te gis nga bu dee bii moom de def nii ah. ndax ba boo xoolee laamu ay laamu baat bi dafa dafa dafa ràgg su fekkee nag mën nga koo man ko ko tënk mën naa la si indil ay abiyat pour que nga di si dellu rek nga mën a xam parce que daa am ne dañuy wax ne fazaatu dañuy wax ne fazaatu taswirin maam gépp alif gépp xam si goo xam dañ dafay nekk musawar ah gépp xam si goo xam dafa nekk musawar maanaam maanaam dañ koy jàng hamza goo ne musawar dañ koy jàng nga di ko dégg ah, di ko bind lu mel ne yastahzi u ah dégg nga ko maam bu fekkee musawar la ah, yaa ngi dégg ah mooy bazaatu taswirin was tas taswirin ah saa ah, mooy sukun goo xam dafa dolliku mooy li mbokk mi doon wax léegi lu mel ni ki min tilqaa'i ah. hmm? mu ni fal aqsu indana kooku mooy ma xaj na magaarib la bëgg a wax ah. fal aqsu indana xuz faida ah. mu ni nga jël njariñ loolu fadaatu taswirin wa sukunun saida fal aqsu indana xus faida yaani ay magaariba ak ñi nga xam ñoo leen di roy waaw mu ni in xurikat yaa ngi dégg ah in xurikat bu fekkee dañ koo maas comme la dayya ah wala zawaata yu mooy in xurikat aw qulibat wala mu nekk loo xam ne maqluba la lu mel ni ki al ula wala al huda xude wala ula aw qulibat mooy ñu wëlbati ko mu nekk alifin maqluba in xurikat aw qulibat qul mutlaqa walaw walaw li aaridin am na yoo xam day lu mel ni kii xaw min sulisa yi li tax ñu kasara mooy yaa sukkoon gi mu wala ah walaw li aaridin nee kooku moom fa waqsun xuqiqa ah kooku dañ koy waqs in xurikat aw quliban qul mutlaqa walaw li aaridin fa waqsun xuqiqa kon am nga àqsu am nga waqs yooyu yëpp nag boo demee i'timaad si téere bi di ko xool fekk nga xam zarfu xam baat yi ni ñuy ràggee boo jub bu ne da ngay mën a xam lii lan moo ko waral bu ci ixtilaaf amee nga xam ko lii na nee naa la bu dee ci euh, magaariba ñoom noonu la ñuy doxale ah. mu des lu mel ni chanaqita kon lu mel ni yiy jógee Mauritanie ak ñi xam dañuy roy seen rasm ñoom itam am nañ ak wuute ak maxaariba ci masala moom ñoom dañoo wax ni wal yaau fi l axir comme yastaxyi xam am na yaagu nekk si baat waaye am na geneen yaagu mujj si ginnaaw comme suñu sàmm doon wax léegi ah. ñu daal di tey sart nag ni la tey na nga tey nag intazit bu fekkee dañ ko dolli laa ma mafhum bi mooy buñ ko ci dolliwul intazit fekk yastax yi yaa googu boo taxawee mu dañ kooku kenn do kenn dëkkul si baat bi ah li qawmihi boo taxawee yàgg dañ kon kooku dëkkul si baat bi loolu mun ne wal yaa u fil axiir intazit aw sawirat wala mu nekk boo xam ne musawara la dañ koy bind di ko jàng wax naa lu mel ne quri a daa ngi dégg ah? aw sawirat aw sukkinat wala ñu sukkoon ko hmm? kooku wala àqsu hmm? ñoom bu dee ci Mauritanie ñoom dañuy wax ne wala àqsu radd kooku moom àq su lañ koy def moo tax gis nga ko ni ah wal yaaw fi l axiri in tazid aw suwirat aw sukkinat wala àq su radd ñoom radd àq su lañuy def foofu mu ni la nag wa xayruha yu dul yii comme ñoom moo tax ñoom ñuy jël yestax yi di banque yaa gi mu ne la nag wa xayruha yu bokkut ak yii ma wax rek jërëtul nga di si sonn wa xayruha nee na kooku moom mawquusa la dañ koy xëcc mu jëm càmmoñ wa gayruha mawquusatun mawquusatun dégguma ne wasañ bi mu muarraqa mawquusa ak muarraqa ñooyam mooy yàggoom dañ koy xëcc rek mu def nii ah léeg-léegi ñu ni la waqs léeg-léeg ñu ni la taariq ci téere yi boo koy jàng ah. boo gisee taariq xamal ne mooy waqs boo gisee waqf xamal ne moom mooy taariix mooy bi nga xam dañ koy xëcc mu jëm càmmoñ ah fi l axiri in waaw aw suwirat aw sukinat wala aqu surad dafa manqué xam naa shaayir nga boo demee nee kii nag nee na la mun la lan lii foog a teg mun la wa saahibul jawhari mooy jawarul jawharul munasama wa saahibul jawhari xaqaqa gis nga ko nee boo demee jawarul ci jawharul munazam nee lii ma wax moom la wax kon loo demee masala mu njëkk bi dafa concerné da jëm si Mauritanie ak ñi yooyu seen i téere beneen bi dafa jëm ci Maghariba parce que foofu dañ fay wuute ci masala moom diggante su boo gisee ñu taxaw si nag day bu am solo te Sëñ Sam junj ko te concours bi itam ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ci ci yaagoo gu ñuy xëcc fan lañ koy teg est que da koy teg si kanamu baat bi wala est-ce que da nga koy wàcc ci wa saahibul jawhar waaye na rek xam nga dañuy wax ne maam boo ci jël xam nga def ko fee defaat ko fële rek mooy mooy mooy mooy façon boobu maam junjoon nañ leen ni leen lépp loo xam ni lu ñuy jëfandikoo la moo nekk si xam-xam amuñu sañ-sañ nit ki bind ko ñu di ko delloo parce que nit ki amoo droit ne ko fokk sukkandikul si nangama ah. bu ñu demee nag bay bind suñu ay jusu bu ñu demee bay bind ay téere boo xam ne yaatal mbindum alxuraan moo ko war a génne su boobaa nag am nañ droit ki nga xam dañ ko bindoon ñu ne ko force na nga ci nangam xam lu mu def ñun ñu koy topp bu ñëwee mën nañ ko soppi parce que nangam lañ ko def loolu waaye ñoom dañuy bind di ñëw bu ngeen ma doy bu ngeen ma doyoo du ma mën a expliquer ah wa saaxibul xaqaqa fii xaqaqa kon yooyu dañ ko doon dolli si rek ci li sëñ Saam doon wax si inna allah la yastahi ak lu mel ni ay bihi ak yooyu ah. soo xasee xam loolu nag mën na laa noppal si lu bare bare bari la sa des nag léegi sa ak gëstu ak jéem a baat bi lan moo tax mu mel nii moo la ciy dimbali nag waaye xam nga lépp moom mënuñoo taxaw fii di ko di ko leeral léegi ubbil nañ la bunt yi ak fenêtre yi wa saaxibul jawhari fiihi xaqaqa bu ko defee la sa na nag moom ak farlu ak ni ko siñ saam waxee rek ak jéema yokk sa xam-xam ak it jéem a ubbeeku rek loolu la ndax dañuy wax ne ñu ngi koy takkara toujours rek ndax ab jàngalekat moom heure bu bàyyee jàng rek waaye woon mu bàyyee jàngale heure bu bàyyee jàng te yomb na ci ba mu ne si ñun jàngalekat yi boo xesee ba yor ay gone moom damaa xamul gone yi dañ lay ëpp doole ba dootoo tal lu bari waaye li si ëpp rek ñaare boo sàggantul day taxaw ah. boo neexee mën ngaa jël bi pour nga mën koo garder mu gën a yomb séew alwaqsu ah. raddul yaa raddul yaa li shimaal ah. maa ngi jubloo wax nag nii ah alwaqsu raddul yaa li shimaal ah. wal aqsu aksuhu wal aqsu aksuhu bila ishkaali ah waaw alwaqtu raddu liyaa li shimaal wala aqsu aksuhu bila ishkaal kooku dañuy taxaw foofu da jëm ak dem nag si li mooy ma kii bi mu nekk loo xam lu waa bee am na am na lu mu dëppool fii bu ngeen déggee fii ma wax moo bu ngeen déggee fii ma wax rek lu jëm ci rasmul osmaani rek ah cest à mooy loo xam ne li ko ko tax def mas gis kanamam comme min sulu sa yi lay ni xam nga li tax ñu mas alifa sukkoon googu mu am mu sës tarafa yi na xeer yi ñaari sukkoon ñu daje yooyu moo ko tax ñu wàcc ko ci suuf kooku aarid la bu fa sukkoon googu nekkuloon torofa yi nga yo aywa ñu ñëw ci maayir yi nga xam ne ñi compo ñi bokk ci liggéey bi toujours euh, li def leen di concerné dañ koy fàttali ndax ñi atte si lañuy sukkandiku di atte tey dañuy wax nit ki boo koy atte war ngaa mën a xam li ñu koy àttee ndax lu dul loolu rek am nga loo nar si moom ah. am na koo xam ne buy xool oto bi ndax day burle ligne continue day dem ba fa ligne continue mu làqulu si garab gi boo ko burlee mun la kar nga taxaw mu jàpp la ngeen am nu ngeen def mu bàyyi la nga dem kooku bu fekkoon daa bëgg nga tegu si aw yoon fa ligne continue ba nekk lay taxaw bu ko def bu la séenee respecte norme yi waaye fa mu làqulu yow boo doon def musiba def nga ko ba pare xam nga li bëgg a waaw nit ki boo koy attee da nga koy xam ne dañ lay attee waaye lii lañ lay attee waaye boo ko làqatoo rek mel nga am na leneen loon nar mel ni ku la tooñ nga di ko rëbb kooku da ngay bëgg mu tooñ la ba nga jëflante ak moom waaye am na nooy def moom bu nga xamee du du la du la du la tooñ moo tax yi yu mat di am yu mat am solo ci di ko diglu waaye di ko jàpp jaar nañ nag ci on yóbbul xat mooy darñel bi ñu ñëw ci bi xam ne moom mooy ñaareel bi waa muwaafaqatu rasmil osmaani wa dabt dañuy fexe ba yow miy bind li ngay bind na dëppoo ak rasmul osmaani waaye dabt bi nga xam ne moom lañuy ñuy jàngale te suñ si am di leen ko tëral te ngeen war koo àggaleel seen bopp tam dangay ngay dëppoo ak dabt amoo droit binde nu mu la neexee amoo droit maase nu la neexee heure bu ne li ngay def danga war a am cëslaay loo xam moo waral nga tax nga def nii yu bari la waaye dafa am yu ñu si indi xatu ma yajibu fihi al wasl dafa am loo xam ni li si war mooy ñu jokkale ko lu mel ni kullama wala amma kaanu xatu ma yajibu fihi al wasl kii dañ ko war a sësale yow nga ñëw dagg ko maam ay daan yu yu métti ñaar ñaar yoon moom boo sàggandul bay bon nga julli ñeent rakka te xam ne moom mën naa am dootul baax atxumaa yajibu fiil was wax naa la si misaal lu mel ne kullama daxalat ummatun ak xamma kaanu yaamaluun ndax ammaa gi la lay gis ko am bu ñëwee mën na ko def nii de ah waaw naa nekk kullama daxalat am na ko am bu ñëwee mën na ko def nii te daa waroon a jokkaloo yow nga ñëw was ñaareel bi mooy wa was fii maa faan la comme fii maa bañ laale yow dégg nga waxuma ba caat ma laa wax ba mu jeex ah. ay fii ma sitaxanta ay fii ma axatum fii ma kaanu fii ma fii xam nga yooyu fàtte boole waaye jàngoon naa ñaareel mooy waslu ma yajibu fiil xatu loo xam ni dañ koo war a dagg ah, yow nga ñoo jokkale ko lu mel ni kullama ruddu ila al fitna ammaanuhu wala yaa nga boole si ammanta wala léegi ammaanuhu boo ñëwee def ko nii yow am nga problème ammanta wala boo ñëwee def ko nii yow am nga mbir koy day ñaar yoo xam ne rasmu moo koy jàngale danañ ci ñëw mooy wa ma ata bil fasli aw bil wasli muwaafiqan lil lafzi aw lil asli bu ñu si accès ci muwaafaqa rasmi wasma daañu si dugg insha allah rabbi bu ñetteel bi adamu iltizaami bi riwaaya waaxida benn riwaaya lan la binduloo nga bàyyi ko dem duggi fane yow fallaahu nga ñëw def ko nii xam nga génn nga yaa ngi dégg ah? lu mel ni ki malik dañoo def malik kon dañuy bëgg adam iltizam bi riwaaya waxida moom loolu moo tax man la yaani maa fi qiraataani wa kasaalika dabtuhu ni ñu koy dabtoo nga bàyyi ko fi nga war a dabtoo dem dugg si beneen cadre lu mel ni alif laam miim yi la doon wax léegi ñun la masaarixa nii lañ koy def madd rek lañu si def yow ngay dugg si war si fii bëgg a dem royu ñële kon bàyyi nga riwaaye bi ñu la doon woo dem duggi beneen foofu tam am na lu muy tegtale moom ay daan yooyu. comme daal bañ a bañ ñu comme ma doon bind xas ma xasee ba tàmbalee xas lépp na doon waaye bu dee bu dee bu dee bu dee ci concours bi moom warsh. Ah, kon dañuy tënk moom warsh warsh rek la ñuy sukkandiku ah, moo tax ma ne ah. am na beneen ci nii non non waaw ah, loolu loolu la loolu la kon gisuma ko est-ce que est-ce que bëgg nañu ko mi ngi waaw maanaam dañ jàpp ni xañ na bi riwaayé di wash laa jàpp mu maxaa maxaa rasul mais mais mais mais mais bokk si concours musul bokk ko bind moo amul loolu tarkis nañ ci bu baax nekk xatul ah voilà kon loolu lu bees la man man loolu maa ngi a teewlu man jàppoon naa ne loolu amul. Hmm? loolu loolu non de ko sax ndax xam naa ko non loolu nañ ci jaar loolu waa andi andi andi andi ma ko wax andi mais ñu continuer léegi mu xaaraba rasmul osmani yi nga bañ a wuute ak rasmul osmani yi parce que rasmul osmani yi dafa am ay xalaat yu si bokkul ñetti xalaat ñu njëkk ñi dañoo wax ni noonu lañ ko bindee ci kanamu yonte bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi lu ñu def yonte bi moo wax nañ leen roy kon amuñu droit bi soppi alxuraan lu wuuteeg ni ko war a bindee moo tax ñu ne moom taw xëy fii la ni ko gisee rek noonu lañ ko war a appliquer xam nga tey arrahman booy bind arab bu la neexee dagg ko waaye boo ñëwee fii amoo droit dagg ko ni nga ko gisee rek noonu koy gisee leer na loolu dañoo dafa am ñetti xalaat bu njëkk ñi loolu la wax dañoo xam nit ki amul droit génn ko am na ñoo xam lu ci mel ni Ibnu Khaldun dañoo wax ne ñoom saxaaba yi ay jàmbaar lañ dañoo bindoon waaye seen xaj na si ni mu waxee moom euh, seen seen xel xaj na avancé wuloon ba xam jamono leen lay indi te it xam-xam yokk na ba mën a indi yu bees kon dañoo war a mën a xool nan lañ ko mën a bindee ba ñuy jamonoon teg alxuraan man koo jàng xam kon ñoom jàpp nañu ko léegi istilaahi la saa su ne ko war a waaw dafa warul nekk daal tawqiifi war nay soppiku selon nit ñi ni ñu koy defee ña sa taxaw si diggante bi nag ñaari wax yi lañ segg dañoo wax ni bu fekkee ki jamono deg jamono mën na koo bind respecté bañ see yokk dara lu boog lu wut rek la amoon ba nit ñi mën koo jàng waaye mën ko dëppale ak jamono te du changé dara si démb loolu tam ñoom dañoo taxaw comme daa mel dañoo bàyyi xel ñaar yëpp màcc nañ jëm fële waaye màcc nañ jëm fii waaye li si gën a wér daal dañuy jàpp ni waaw taw xii la waru koo soppi ah. loolu ci ci rasmu la jëm ah. bu dee lu mel ne bu dee fii fi ngay ñëwee fii lu mel ne muxaalafatu rasmu usmaani yi fa ngay ñëwee ci tableau bële ah parce que rasmu dafa am ay cosaan comme yi siñ saam waxoon comme dabtu ni mu amee fukk yoo xam ñoo koy tënk moo dabtu dafa am mabaaxis boo koy gëstu dañ laa tëggal fukk yoo xam ne danga koy respecté ñoo xam ne yaa ngi ci biir dabt bu dee rasmu nag moom juróom-benn la juróom-benn xawaayit mooy nekk ci biir rasm bi ci jiitu mooy lu mel ni ki xasfun xasaf ah fu ma xasaf daanaka mooy alif yooyu ngeen di gis rek ñu di ko aj mooy si sam doon jàngale léegi ay lu mel ni ay xaaliduuna wala ay rahmaan alif yooyu ñu aj noonu dafa ñëwuloon ci mbind mi ziyaada xam ngeen ko lu mel ni ula ay waa googu nekk ci diggante bi ah. wala lu mel ni ay amanu alif googu yi xëcc nga xam day am daara ci kaw te kenn du ko jàng ah. loolu ñaari baat rek la wax ne ñoo si bokkul lu mel ni ana ak lakinna yooyu moom alif gi zaid la waaye du am daara waaye lépp loo xam ni zaid la ci alxuraan dañ ci sàtt mu am benn daara ci kawan ah. ba mu des lakinna gi nekk kaf ak inaana laa na si boo ko dee xool sax moom du am du am màdd ci kaw ah. màdd gi ci ci daara ci kaw alif gu mujj ga waaw am na waaw am na hamz hamza moom dana ñëw ci ñaari yëpp ah hamza moom moom la moom la muy temps ah. ah ok ah maam tënk ko ci kenn daal effectivement parce que bu fekkoon daf koy tënk day wax bi riwaayati warsh waaw ñu ko topp benn riwaaya rek ah. loolu moom leer na ci man ak Hamza ak badal badal mooy li ngeen doon jàngale rek lu mel ni tey ta ta ta anis waroon a nekk marbuto ñu tàllal ko ah. wala la nasfa am bi naasiya ah. noonu tawkiid la ñu soppi ko def ko alif maanaam loolu rasmu moo koy munaaqasa ak wama ata bil fasli aw bil wasli mooy liñ doon wax léegi muwaafiqan li lafzi li lafzi mooy moom laa doon laaj sëñ bi léegi lu mel ni fa in lam yastajibu hmm? xam nga lafz bi mooy amut nuun boo ko xoolee waaye cosaan la am na war naa am nuun ndax fa in nuun a ngi si diggante bi waaye ki dañ ko idda xam si na am moo tax ñu li ngay li ngay faslu ak waslu fokk nag muwaafiqan li lafzi aw lil asli ak wasu qiraatayni mooy boo xam daa ñëw di wane ne baat bi ñaari yoon lañ ko war a jàng ah. ñaari dafa am ay jàngin dégg waaw. waaw dama laa jox benn message rek pour nga xam rek boo si jël rek mu yóbbu la sa basares waaw mi nga boo si dem rek mu yóbbu la sa basares ah. waaye nag fa illami saj boobu bi amul nun moom laa bëgg a wax dégg nga wala allah aqula wala wala allah taalu ah. mooy yi xam nun ngi dañ koy dindi rek te fekk moom daa war a ñëw ne la mooy wama ata bil fasli aw bil wasli muwafiqan lil lafzi aw lil asli ak waju qiraatayni mooy boo xam dafa am ñëw ñaar qiraa lu mel ni malik yawmi diin wala malik ya ah, mimma qad shuhir fihi ala ihdahuma qad iqtusir nga xam da ngaa yem si benn bañ a nangu nga beneen ba waaye yow jàngi woo yow yaa ngi si malik yawmi diin yem sa waaye bu ko jaxasee riwaayaat mooy comme bi ñu doon wax léegi nee na wama siwa hada min al lépp loo gis nag ñu dolli ko te bokkut ak juróom-benn yii ah nee na kooku moom fa bi xitaabil fadmi wal balidi nee na loolu moom ku amul ak dégg rek moo ko wax wala koo xam ne xel mi neexul waaye bu dee alxuraan moom ci rasmu yii rek mooy yeex moom la ñu war a dëppal moo tax ñu jeexale fële euh, muxa muxaalafatu rasmil usmaniya mu des ci yi ñuy xool adamu tafriq na alifatil wasli wala hamasat hamsatul wasli nit ki da ko war a xama lu mel ne fastabshiru wala fastaxafa wala hamazaat ak goo xam ne hamza gu ñu war a jàngale lu mel ne qul a'uuzu wala qul laa a'uuzu léegi nag boo leen tàqatlewul am na ay daan yu si am na si benn année boo xam ne gis naa lu mel ni aw asaaratin kooku war si la doon bind waaye bi mu ñëwee daal yëpp aw asaar aw asaaratin nga xam ñaar yëpp daf ko réy la te bii am na lu tax mu waroon a soppi ko ah. aywa kon adamu tafriq al alifat al wasli wal hamasat masalan lu mel ne awi taamun xam nga awi taamun te it kooku itam gis naa ko nga xam ne moom daa dem sox ko jàpp ne hamsatul wasl la fekk na doon ko kon il faut nga bañ a xam xama aliful wasli ak hamasat ya ah. lu mel ne qulunzuru xam ah. boo gisee kii ni nga koy jëfandikoo bokkut ak bu dee quluuhiya ah. léegi boo leen jaxasee man naa mu andil la ay ay jafe-jafe loolu ñu ne adamu tafriq alifatil wasli wal hamazat ak adamu muraati mahali silla ah ah waaw ah. ko de bii non nekkul nekkul waslu de ah. am sa xatuma la wa aw itaamun waaw bu dekkee nga ne aw itaamun ok adamu murahaati mahali silla wa nuqat fil alifaat maanaam silla mooy yi ni suqi rek moo gën a siiw si ñu na ah. suqi dafa am barab léegi ñàkk gee xam jaxase ko ayo waaw pour pour ñaari alif yi Ah, loolu moo tax ñu defal tomb bi masque la muy muy bi la moo koy tomb rëdd fii nag wan ne la kii moom bii moom bii moom bii la doon bii moom bii bi moom bii ñoo bokk ñaari sukkoo ñu raja rek ñaari sukkoo ñu raja rek ايوه adu muraat ma alisilla wa nuxa fil alifat ah. léegi nag comme dañ la ko tere dafa am façon yu ñu koy defee yu bokkul ah xam boo xoolee téere yi léegi nga gis ni nit ñuy suqee léeg-léeg day wutee hamsadul muqtadul ibtidaa waaw mooy mooy mooy mooy tomb soqi bi waaw waaw ñun ñooy wax soqi ñun ñooy wax soqi rek moo benn la léegi xayaatuwaa fil masaxif xam nga day ay kaamil yoo xam ne ñoom nii la ñuy def maanaam bu ñu koy soqi dañuy def nii ah, bu dee si kaw du ko laal bu dee ci suuf du ko laal ah. bu dee ci digg bi nag mu ñëw ba fi mu taf si hmm. déet maam loolu benn genn genn anam waaw loolu tax man la genn anam ah am na si ñoo xam bii la ñuy jël xoolal ah xam nga bi ah waaw fii yëpp yëpp wér nag bi day am bi tax ñu ma ma tënkaloo ko fii ni la muttasila fil xaali kulliha am na si ñoo xam ne yëpp dañ koy sasale moo xam li ko jiitu fataa la moo xam kasara la moo xam damu la maam soxi gi moom bu ñëwee day tafu si alif gi ak xaala bu manti doon ah yaa dégg bu dee Muhammad bi ma doon wax léegi moom day wax ni assila moom xayru mutasila du laal alif gi illaa fi xaali damm waree damm rek lay laal alif ga xam nga kon ñoom boo xoolee dëppoo nañ ci bii damm gi moom yëppay laal alif gi ah. waaye nag bu fekkee fataa da ko jiitu wala kasra jiitu ko foofu ñoom foofu la ñu am ixtilaaf ñii dañ koy laalale alif gi ñii dañ ko laalale xanaa fii nga bëgg a mu def nii wala fële <laughs> waaw yëpp am léeg-léeg ngi ñoom fii lañ koy def léeg-léeg sax gis téere yoo xam dañ koy wéyee day jaar ba bëtt ba ñëwaat <laughs> fii waaw xam nga xam nga yëpp day am nga xam ci digg bi lay nekk parce que dafa laal lépp ah <laughs> boo xoolee Musaf boo xoolee Musaf Muhammad yi ci digg bi la jël ah. sa sa côté bële waa fii nii kon daa mel côté bii la war a nekk ah, ah loolu moom laa lay wax ni léegi moo tax man la fi ne booy xool téere yi am na ñoom fii lañ koy def ko fi jëlee léeg gis ñoom fii lañ koy def léeg-léeg gis ñoom dañ ñëw ba ci digg bi def dara bii daal danañ ko wéel bii ak bi def nii ah waaw ah. maanaam xam nga fi xam nga fi la xaqiqa fi la li sëñ bi wax boo xoolee comme xam si gi naka jekk fii la nekkoon ah xam nga fii la ko doon def kon normalement bu fekkee ne da ngay da ngay def xulu yee def ko fi moo gën moo gën a nekk maa xul waaw parce que tam xam nga parce que fii la nekkoon ah waaye fi mu doon boo génn woon ñaari kaamil war si rek masalan yi jógee maxaarib ak yi jógee masaarix bu dee masaarix ñoom fii lañ ko def ci côté bii ah digg bi daal moo gën a siiw ah nañ nekk ci digg bi parce que ci digg bi la war a nekk nag. waaw boobu tam boobu tam Moussa yi dana ko def. man des na ko def dama laa wax ne lépp loo xam ñu ngi koy rotal si téere itam dëppoo xam-xam day su ko bañ ah. day jaar fii génn dana am waaye nag bu leen neexee bi ñu gën a notoon nag mooy nga yamale ko fii rek. ñetti anam yi daal benn bi ba leen neexee jël leen bii <laughs> jël leen boobu dégg ban andi ma wax <laughs> ah kon du ma ko mën a <laughs> yëpp wér rek ah yëpp wér yëpp baax léegi bu yaa xam nga gis nga nii léegi ah loo neex defal bii ah masala na ah? bii moom dal na xel parce que xam si foofu lay nekk boo xoolee masaarixa yi bind si ñoom nii la ñuy def ba naa la lépp lu école nangu ba a su ko waaye nag ñun buñ ah kay dañ lay rek pour nga xam ni la parce que nit mën naa ñëw bañ def lu bokkut ak loolu boobu tam am na waaye bii daal moom bii daal bari na lu muy am dañ leen a jàng master waxoon nañ ne ci kaw rek am ñu ne day nekk maanaam ci ci ci moom moo xam ngeen gis ngeen gis lii waaw yéen a master bu day ci kaw bu ñu ko nàkkloo alaawoon bi koy wane. mais nag bokkut ak bu leen ko jaawale nag bokkut ak silla bi de ah bokkut ak soqi bi ah. voilà soqi bi moom war na leen benn façon bi ah. voilà fi mu doon ñu ngi si xam gi xam ne naqalu la. naqalu loolu lañ leen di wax da ngeen ko bu baax su boobaa ñu ne woon masque bi day nekk ci. kanamam loolu bu ñu ko naqaloo ñu defee alaama bi mu nekk fii moo lii waaye eh, ñi ngi xam sa balaa yàgg. moom laa moo tax ma ne la. bi dañu alif bi la leen na ci digg la wax pare ci laakin bi wasafin min loolu ci wax. bu fekkee damm la. bu nekkee damm waa. <laughs> mi ngi mel ni rek comme nii tey bu fekkoon ne bu fekkoon ne tey ah, bu fekkoon tey amul amul amul amul naqlu ah si ñaari kaamil yi ngay gis dangay gis li ah xam bi waaye nag ñun tey bu ñu demee bay bind am na lu ñuy sukkandiku parce que dañu bëgg respecter benn norme ah. waaye yow miy bind amoo droit ah. parce que yow sens bi sens bi mooy ah yow miy bind amoo sañ-sañ tey bu fekkee bii da ngaa ñëw comme na ma waxoon dem première nga def ko nii ah. nga jàllaat def nii daa boobu yàgg nga defaat ne le xam ne sukkandiku woo ci dara waaye mboolem mi leen wax xam-xam la mais li ngay def da ngay xam li ngay def moom mooy lan suq bi moom yii lañ ci xam jàng nañ ko xam ne téere yi saxal nañ ko moom moom muttasila fil xaali kulliha man xuula ah waaw bi mooy soq bi ah waaw yi mi ngi waaw ñaari anam yi mi ngi ni bind naa ko léegi ñu ngi woon ci alhamza al manqula moom dafa nangu al infisal wal ittisal fi xaali dama ah. al infisal ah day taxawal al infisal mooy du ko laal lu mu ngi nii ah comme aduwun illal muttaqina ah? yaa dégg ah? wal ittisaal fi xaali damu ah? bu fekkee day damu lu mel ni ay xulun zuru ah bu dee damu mën naa la xaali al intisaal wal ittisaal fi xaali damu bu dee Muhammad yi moom day wax ne asila xayru mutasila du laal alif gi ilaa fi xaali damu bu dee yan yi moom lañ ne al ittisaal moom fi jamiil xaalaat ah ayoo waaw jëlal leen rek jëlal daal loo xam dëppoo na ak xam-xam su boobaa moom mën ngaa noppal kii topp waaye itam mën ngaa noppal sa sa sa sa li ñu des si temps bari na wala quinze minutes aw itaamun moom képp ku def fi tomb da nga koo ndax aw itaamun la waroon doon yow ñaari sukkoon yooyu tax nga wàcc muy aw itaamun ah qul uhiya du am tomb parce que moom am sa du la ah ñaari sukkoon yi qul uhiya la comme qul bi rabbil falaq qul auzu mën naa dindi ah waaw a ah, kooku silla bi lay wax silla maanaam tomb suqi gi ah tomb suqi gi anamu mooy bii gi moo nekk nii ah mooy mooy bi mooy moo bi am nuqtadu ibtidaawa mooy suqi rek nuqtadu ibtidaa mooy bi am nuqtadu ibtidaa yoo xam mooy tomb gi la mu ànd nag moom mooy suqi ah si bu ngeen wax daa <laughs> ah. ma ko màggale pour au ñu may au ñu dindi bi waaw moo gën waaw man ngaa def ñaar yëpp boo si jël mais sukkandikul ci benn rek bu man manquula moom lii moo si am benn infisal wala ittisal fi xaali damoo ah. bu dee bu dee bu dee ñeneen ñi ñoom dama al ittisal fi jami il xaalaat ah? a am ku ko ku ko tomb ku ko tomb. comme téere yi sëñ Bara Ndiaye bi dañu koy ittee. waaw ah, waaw xam na da ko xam na da ko rek. ñoom dalee noonu rek. waaye loolu aw étoo amoon rek la waroon. Hmm? waaw. maanaam bu dee fii moom bu dee fii moom du ko laal ñoom fii rek lañ wute si bu fekkee dammu gi la maam si lañ si lañ ñoom dañ si dëppoo daal si dammu gi ah dammu ñoom dañ ko koy laal li ko koy xamoo fii gisoo xamu fii laalul fi daal laal fii laal ah fii moom laalu fii laalul mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk dammu gi mu laal ah loolu mu ne mutasila fi lhaali kulliha waaye asila xayru mutasila ila fi xaali damu bu dee musaf al muhammadi ah leer na léegi bu dee fii li des si bu fekkee ni bu fekkee ni maa ngi leen ko leeralal maa leen bu fekkee ne ñun buñ lay bind loo gisu waaw moom laa du référence quoi mais dama la wax ñu misaal naa leen ko ni leen bu fekkee ni bu fekkee ñun dañuy bind jusu pour bañ wuutee am xam nga tey man ngay mën ngay bind benn jusu bu fekkee ni tënkuwu leen ci benn école maanaam nga toppee ne kee toppee ne de waaye suñ demee nag bay liggéey loo xam ne ñëpp koy bokk dafa war a génn si la ñuy joog xool la kaamil moom jàpp na ne matale na yi war a matale yëpp ñu intimatisé ki ñu bindoo ñu orienté ko moom muy defee ne loolu mooy tax may tudd al muhammadiya waaye nekkul ni moom mooy référence boo xam dañoo war dellu si moom jaajëf comme juste euh, mi woo na mais du yëpp nag ndax yaakaar bu mujj bi moom sama ñu bu mujj bi quoi bu mujj bi xanaa aywa sëñ bi ku mel ni yan xu wala yam xu ah mooy tomb bi fu muy nekk. xam naa xam naa xam naa ne waaw. comme waaw. comme comme tomb bi xanaa. xaaral moon la ko waaw. xaaral ma xaaral bind la ko fii. comme nii daal ah. comme ni ah xam naa daa gis ñuy def nii ah mbo mbo mbo mboolem mboolem téere yi nga xam ne dañ leen a wéral mboolem téere yi nga xam dañ leen a wéral ñu di leen topp boo fa dem gis fa bu mel nii da nga gis bi di nga gis bi di nga gis bi moo tax yow boo sa baan bi bi fii nii fii ah boobu la boobu la gisoo gu ma ko def bi ma yaakaar naa bëriwul xanaa bële bii nii bii ah waaw bi moom maanaam bu dee kii am am na ñoo xam si nii rek la ñuy def ah? maa fi tomb bi nekk rek. dafay gën a jege mais comme mi ngi mel tey xam nga fi mu ne mi ngi mel tey ulaayka gi ñu la wax léegi ah xam nga fi ne boo xoolee comme ñoom dañoo wax ne xam si gi fii la nekk bu dee si yenn téere yi ñoom bu ñu koy maas fii lañ au lieu def ko ci kaw mais fii lañ ko def parce que dañ naan kii moo ko moom mais fi mu ne bu dee téere yi wér itam nga xam jaar nañ si ñu war a jaar da ngay gis dañuy def nii ba pare dem def nii ah. moo tax day am yoon boo def baax na am na yoo xam jëlul taral nag boo si def rek baax na <laughs> ku taral ah boo si man dara lu ma ne damay man damay joxe ay misaal rek eh, anamu al marqueur ban si marqueur mi xam naa li mat am na ci loo xam mat naa leeral itam ah. lu mel ni lu mel ni lu mel ni lu mel ni lu mel ni jarra lu mel ni jarratu naql bi ah jaraan ah jaraan itam ñu bari niñ koy bindee dafay xaw a wuute léeg-léeg ak xaayida bi ñu war a bindee yaa ngi dégg baax mel ni kii lu mel ni wala qad tey naa bu fekk ñoom dañuy wax ne si kaw maam njaraan gi si kaw sataar gi la war a tege gi waaw nii nii ah yaa ngi gis ah. moom ñii la war waaye léegi ñoom dañuy wala xadda wala xadda tey naa def ko nii ba pare ba pare daa war a sew te bari dañ koy dijjal boo ko dijjalee loolu xataa la parce que ci bopp la dafa war a sew na sew rek bu mun doxoon wax nañu ne lépp loo xam ne waxoon nañ leen ko ne lépp loo xam dañ laa wax ne la na nga ko na ko xongal su fekkee amul jumtukaay sewal ko mu wuuteeg bind mi ngi fi fekk parce que rek xongal gi ak sawe gi li ñu mooy ñu xam ne lii di ko saabee redwan alim di ko di ko doxal mu ñëw si ñun amu si woon ginnaaw bi lañ def ak farlu ak juhud ba def ko si loolu lañ si def wala non non nee naa leen la si digg saataar gi lay tegee wala xam daa sëñ Bàkke laa tudd ma yeet Seexul Xadim waa dem wax sëñ Bàkke nee waaw léegi gi wax naa la ñaar am na si léegi léegi nee naa la ñaar yëpp dañ ko def dañ sax na léegi mën ngaa def nii ah, si kanam mën ngaa def nii ah. noonu nga ne waaw ah lëj lëj yi moom képp ku ko xo moom képp ku ko xongal danañ wax si yow lëj yi moom képp ku ko xongal am nga problème ah léegi moom dox foofu ñaar da siy am bu dee bi nga xam ne waqfu la ngay taxaw bu dee bi nga xam day taxaw ah. ana kii ana ana ana ana kii eh. ah? man dafa am benn dé xamoo ñun xamoo ñun ñu nekk si table yi wax moom yéen ñuy wax fa heure bi toll parce que ñun moom dañuy ñun dañuy sëgg di wax rek man moom bu ngeen nee buñ doxalee ñun moom buñ doxalee trente mille ba ne hmm? non ana kii ki doon laaj loolu xaw xam nga waaw ki doon laaj muhtadi xaw ki laaj muhtadi xaw muhtadi moom muhtadi bu dee bi nekk fële nu mu tudd di jiitu wees na dàq na jabal la kooku kooku kooku bii lay am bi nekk kan fi ci lay bi nekk kan fi mooy nekk nii ah sëñ bi kii laa bëgg a àggale de te fi mu ne temps bi jeex na de ah. fan laa yemoon fa numéro lan six man kay boo nee dox na rek ma yem foofu ah. maa bu dee ci bu dee ci maayir yi gars ngeen dugg tutooy bu dee ci am na si bu am solo mooy adamu adamu tashkili kalima adamu tashkili kalima baatu lëmm maa soo kooku moom sakkan nag sakkanaay koo xam ne koo xam booy maas di nga di nga ah. ne aw xarf wala ma ne amma kaanu nga bañ maas kaga wala nga bañ a maas nuga mais adamu tashkili kalima adamu tashkili kalima aw ah. shida ah. waroon a sàddabaat sàddawoo ko tarku shidda waxal duha mooy nga def ko fu ñu ko wër woon a def te xamu te xamu loolu lu sew la ndax fi mu dafa bari si ay alxuraan yoo xam ni boo boo boo tëyit mën na tax nga sàdda ko te fekk wala si ko sàdda xam nga yooyu mooy waral nga gis lu mel ne ay lamma wala bu fekkee da jàng la jam jam sàppo xam nga kooku boo ko xamee grammaire doo ko sàdda waaye bu fekkee xamoo grammaire maanaam boole bi moo la si mën a génn ah. parce que yooyu yëpp boo xoolee dafay ànd ak day nekk doo xam ne day nekk in mu xafafa te ku ne xam ne kooku jawaabam dafay ànd ak lam suba loolu loolu nag boo ko xamul munul nekk munul nekk lamma comme lamaa yatafajar lamaa yashaqaq lamaa yaxbitu lamaa yashaqaq yooyu gars yi wax ah. lamaa alayha ak lu mel ni ki yi nga xam kenn du ko saado lu mel ne kasel laaj tey jam-jam kon da ngay bàyyi tarku shidda aw xaltuwa comme kasabu ah kasel laaj tey jam-jam ñeent xabuna ah. xabun xana untur untur kayfa kasabu lanaama waxaana la ah. seen kasabu baraan xaawulaay la seen kasabu ak ay nangam kon yëpp moo ko paralacena kasabo nangama nang yëpp suma ma kasabal fawaadu nangama ah. boo ñëwee am na lu ñuy wax tamiisu tamiisu xisba wala sumun yi wala nisib yi ak yooyu nga ñàkk koo def tamise maanaam bi maanaa bi nga si àggee dijjaloo ko wala bu fekkee dijjaloo ko bindoo si wet gi ni lii isib la wala nangam la kon dañu bëgg ki si àgg ku si accès mu defal ko màndarga buy wane ni lii xisib la wala lii sumun la wala li parce que yooyu bu ñu ko deful soññ si nit ñi danañ dem ba yiñ xamoon su mu ni xamoon ci suñu jamono ñu bàyyi ko ngir ay camion dañuy mool dañu ko indil delluwaat moom di jéggaane danañ dem ba léegi liñ xamoon lépp daañu ko fàtte di jëfandikoo yeneen xam-xam te fekk na mën naa bañ a demee noonu kon jéem a garder suñu turas ak suñu ndond moo tax ñu taxaw si lii mboolem xisib yi ñu xamoon fii boo si accès nga di ko màndargaal ak sumun yi ak yooyu si maa yooyu la bokk maanaam loo maanaam boo si accès bindal rek. ah. wala nga réel ko rek boo ko réelee baax na boo ko jëlee baax na ala kulli xaal lu si mën a xew baax na kon mel na ni waaw. waa gars yi yéen ñi maa maa ñor na leen de. non yooyu yëpp defuñu ko yow boo saagtee xool yow boo saagtee ne la yisib rek ne la yisib rek. bu dee ah loolu moom loolu moom daa loolu moom gars yi defuñu ko de. déedéet bu boobaa bu dee yoon loolu boobaa bu dee yoon isib ñaari bind laa doon yaakaar naa. benn bind ah nisif xaaj maanaam maanaam nisif mooy xaaj ah su benn baat robo ñaari baat boo ko xoolee daal yooyu yëpp amu si yow daal boo ñëwee. lan loolu boo ko defee def ko essayé ko.